woon ci ñooñu damay wax souvent ne bu dekki won tay xam naa ne France dégage lay bokk bu ñoom gi Marius Sagna <laughs> ndax c'était la même posture mm-hmm. donc loolu tam professeur dina ci dellu nan la ñu def ba les combats d'hier sont les combats d'aujourd'hui mm-hmm. donc loolu dinañ ci dellu professeur xam naa ne foofu la ñuy tàmbalee bala ñuy tijji waxtaan bi euh, comme ni ko Pape Cheikh waxee muy lépp loo xamante ni tey jii ñoo ngi koy jéggaani wala jéggaani nañ ko amoon nañ ko ba pare loolu num ñu dalee mm-hmm. waaye Omar Blondin Diop laa bëggoon ñu dellu ci ngir xalé yi xamné ne tey di 10 ak 11 mai amna ñeneen ñu ñuy célébrer waye ndekete amna na ku ñu gën a nan lañuy def ba célébrer ñeneen faté ki ñu gëna a lool nan lañu dalé jërëjëf pap jibril euh tudd nga ko xam ne yaakaar ni ci taarixu histoire du Sénégal. Mm. bokk na ci ñi nga xam euh ay ndaw lañ yo xam dañoo téla a deug mm. dëgg la tubaab bi dafa nekkoon muy jamonoy colonisation. mom mm. bu bokk ci liñ wax les post 68 ards. muy ñi nga xam 1968. Euh, dañ doon bind ci miir yi il est interdit d'interdire muy mouvement boo xam ne mi ngi bàyyi ko États-Unis euh, bàyyi ko ci benn livre bu ñu doon wax l'homme unidimensionnel ak Herbert Marcuse waaye ñëw France euh, ñëw Allemagne ba nga xam ne Europe jël na ko waaye ñëw Sénégal ba nga xam ne ñoom Blondin ñi ak ñeneen ñu nekkoon ak moom bokk nañ ci ñi nga xam ne taxawoon nañu di bañ bañ googu ñu leen doon bañ ci leen leen boome ci leen leen jële yóbbu leen def leen loo xam ne tey jii ba suñ jonni tey xalé yi dañ koy jël comme exemple étudiants yi dañ koy jël comme exemple mhm. képp koo xam ne tey résistant nga dañ koy jël comme exemple mooy li nga wax sànq ci bañkat yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal mhm. tey jii euh, Bécaye Blondé Diop di frère am nekk tey ca Bamako nekk architecte mhm. mi ngi seetaan nga xam ni ñoom aussi ak docteur Diallo Diop mi nga xam ni mooy porte-parole famille bi tout le temps mooy wax euh, Omar Blondé nekkoon koo xam ni euh, jouer na rôle bo xamni en tout cas ci Sénégal kenn dootu ko faté waye dañuy wax ni euh, souf man na lek souf waye fii lay bàyyi jëf mom defe na ni jëf na jëf jo xamni ba suñu jonn tay dañ koy wax ndax ni ñuy fàttali Lat jor di fàttali ko Albouri wala ñu fàttali ko beneen figure religieuse non lañu ñuy ko Omar Blondin Diop ci lim rëy lim def ba tay ji ci gore gañ ko yobbu mm-hmm. légui question bi ñu njëkkee pap Cheikh moy nu ñu def ba ñooñu ñu réré leen parce que en réalité il s'agit de ça tay ji bo démé ci yeneen réew yi ñi ñu am non seulement dafa am consensus bu am ci ñoom waaye dafa am bés yoo xamante ni bu dellusee ñëpp dañu mémoire collective bi yëpp. dañ leen di ndamoo dañ leen di ndamoo. di leen dimbalikoo tamit. ci mm. seen quotidien mm-hmm. nga xamante ni ñoom seen conscience la ñuy nekk boo xamante ni saa bu ñu nekkee surtout ci situation. Mm. te tey yi am na phrase boo xam président junj na ko ci discours am. Mm-hmm. dafay renvoyer ci patrimoine immatériel boobu waaye nan lañ koy jëfandikoo. dëgg la euh, Pape xam nga. Euh, dañuy wax ni Sénégal boko ko doon xool dafa am ben instant bo xamni bu fekkee ñu tubey la dafa hmm. pour defaraat ko ci nga gis sax ñu def histoire générale du Sénégal may nuyu bu baax le professeur Iba Der ak équipe bi nga xamni ñom la la yépp mbax pap Pape euh, euh, Cheikh Anta fay wax ci nation nègre et culture dans la préface hmm. mu ni l'essentiel pour le peuple et de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Hmm. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. Qui gàttal moi, patrimoine immatériel nous nga wax. ñi nga xamni ñoo samp cosaan li. bu fekkee ni bëgg nañu réew mi il faut que ñuy fatali ko ñu mel non. Mhm. ndax dañuy wax ni kenn def tay

ñu def li tubab di wax passage au crible bu ñu jëlee kenn ku nekk li nga wax ñu sottat xalaat bi buñ ko xoolee yaakaar naa ne Pape Djibril danañ mën a dem fu sori foo xam ni lépp loo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko danañ ko mën a jëfandikoo. parce que daf ci am yoo xamante ni euh, ñu ko dundoon ñu ngi fi ba tey te binduñ ci ba tey. jërëjëf Pape xam nga loolu bokk na nag ci suñu suñu feebar mooy bind. Mm-hmm. xam nga ñun dañu bokk ci li professeur Mamoussé Diagne ji wax les civilisations de l'oralité. Mm-hmm. maanaam ñun dañoo dañoo civilisation wax lañu. Mm-hmm. boo xoolee am na lu ñuy wax ay géwël Mm-hmm. am na lu ñuy wax ay waxkat am na lu ñuy wax ñoo xam ne ñoo yor cosaan ak aada ñooñu nag yeex nañu bind boo xoolee Afrique ñi doon bind mooy boo demee Sierra woon wala nga dem Libéria waaye ñi ci gënoon a avancé Cameroun lañ nekkoon mooy li ñuy wax l'écriture baamun kuñ wax Ibrahima Njoya mo jëk traduire la Bible en bamoun mom la wax l'écriture bamoun mm. waye ñun suñu société yi ay société wax lañu looloo tax ñu ni tradition orale bi il faut ñu recueillir textes yi nga xamni def nañ ko comme ni ñu ko UNESCO waxé won en 2003 mm. buñu ko défé loolu ba paré nak do ko dajalé nak bind ko transcrire ko traduire ko mm. pour que loolu mana mana mana mana fexé ba raw li nga xamni mom la Pape Cheikh doon wax sank ndax luñu bindul rek dañ koy daldi ñak ci lepp loo bindul day naw mais mais professeur est-ce que loolu dina yomb mm-hmm. Euh, euh, fàtti dina yomb parce que ñun ñi ci la ñuy def suñuy thèse de doctorat boo demee tey université Cheikh Anta am na ñoo xam ne def nañ ko ci pulaar am na ñoo xam ne def nañ ko ci séeréer am na ñoo xam ne def nañ ko ci joolaa kenn ku ci nekk dellu nga ci cosaan li nga xam ne fa nga nekkoon nga jël ay cassette enregistré ay mag ñëw toog transcrire ko traduire ko analyser ko def ko ay livres yoo xam ne dinañ ko mën a sottantal ba askan yu mañ koo jariñoo léegi histoire tamit discipline scientifique la manam lo xamanteni aussi ça buñu ñu dafa laaj ben rigueur scientifique ben travail scientifique bo xamanteni xeyna dina am confrontation waye buñu buñ ko génnee nit ñi dinañ ci dinañ ci manam comité scientifique dinañ ci mëna d'accord ndax ni ko ñeneen ñi di défé yeneen réew yi nga xamanteni possibilité biñu am génne sen mag ñi tek ko càmbar ko xol sax yeen say fiñu fi xol fiñu fi réussir

kenn ku ci nekk indi li nga xam ni moom la ñu yaakaar ni boo ko indee yëf yi dana mën a dem ci kanam. ma jox la benn exemple ci histoire Cameroun dafa am benn benn benn benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Achille Mbembe. Achille Mbembe nekkoon ni fii ci Codesria léegi bu bu ma juumul mi ngi nekk Cape Town fële ci Afrique du Sud. moom euh, li ko li ko gën a lancé bi ñu bind histoire kamarun mi ngi mel ni nga jël histoire Sénégal bind ko ba nuppi fàtte ci ku mel ni Lat Dior. wala nga fàtte Albouri wala nga faté ko melni ni El Hadj Omar Foutiyou moom bi loo bi ñu ba noppi dafa bind ben article tudé ko écrire l'histoire à partir d'une faille livre bobu moko ko lancé te loolu Pape li ngay wax sank rek moy fexé ba nga xamni kenn ku ci nek ci wet bi nga mané ak wet gi nga fété nga mën indi sa xalaat

defatuñu recours comme ni ñu ko waxee léegi aussi ci seen ci seen ci seen liggéey. Mhm. Euh, bokk na ci euh, ñoo xamante dañ leen di tànn nii tey waaye mënoon nañ ñoo fanaanee tànn. ñoo xamante ni ay góor comme ay jigéen. Mhm. yoo xamante ni marqué nañ suñu histoire réew. Mhm. Euh, boo jëlee tey ji quelqu'un comme Lat Dior. Lat Dior Ngoné Latyr Diop boo ko jëlee tey bu weesoo liñ la ciy jàngal ci école. wax la ne 1886 la tëdd de xale fii la gane àdduna fii la lii la def ak nangam. dafay laconique ba nga xamante ni du ñu renseigner dëgg-dëgg ci nit ki ki mu doon. Mhm. Euh, loolu nu mu amee la man beneen question subsidiaire bi mooy. Mhm. est-ce que mën nga ñoo wax tey jii kan mooy Lat Dior Ngoné Latir Diop ci baat yu gàtt. jërëjëf Pape Djibril xam nga man damay naw toujours ni ngay posé xam-xam parce que. Mhm. wax dafa am nu ñu koy laytaaye. xam nga euh, damay jël ku mel ni professeur Massamba yi wala ku mel ni professeur Pape Cheikh professeur Babacar Mbaye Ndaak mm-hmm. ñun euh, dañu bokk ci sénégalais yi nga xam ne dañu am ñaari légitimité mm-hmm. benn bi mooy la légitimité ADN dañoo nekk ay géwël donn ko muy suñu deret beneen bi ci des mooy la légitimité académique mm-hmm. mooy dañoo dem ci euh, euh, tubaab bi jàng ko boo ma laajee Lat Joor dama ci sawar trop ndax man sama maam dafa bokkoon ci ñi nga xam ni dañoo nekkoon ak Lat Joor kere ba muy gàddaay di dem jaxara manding dans le Sine sama maam la àndal sama bi mu tëggee Euh, fukki kilomètre ak nangam bi ko Lat Joor déggee dañu nañ ko gàttandu galañ boobu borom dëkkul ci réew mi ki ngay laaj Ngoone Lat ko jur ab sa mboonoon Aysata Issa Dieye Fatim Penda Damel Teñ Latukaabe ki ngay laaj saaxewar soxna Mbaye ko jur mëdun saaxewar saaxewar Fatma kuli ko duggay ndaw wégéej ba mëngoonam xol sambañ ba mbañ gànna leel fay gànna kunu kunu jàndagaat njaan bardaagu geddoo geet njaajaan njaay abu dardayel loolu nag Pape dama ci content trop ndax day li nga xam ne moom laa namp waaye boo xoolee nag su le plan scientifique Lat Joor ñaari dimension moo tax ñu gën koo jàpp benn bi mooy ndaw la loo xam ni ni ma la ko doon waxee sànq ci coulisses yi ni la ñun xaaruñu Corneille mhm. bi muy bind naan aux âmes bien la mhm. valeur n'attend point le nombre des années mhm. ñun xaaruñu ko ndax Amari Ngoone Sobel bi muy xeexal baayam dànki amul fukki at ak juróom-ñaar Ngoone Latir da Ngangarang bi muy xeexal baayam amul fukki at ak juróom-ñaar waaye Lat Joor it bi muy def ak njàmbaar fukki at juróom-ñaar la am dem fukki at juróom-ñeent njàmbaar googu moo tax 1863 mu dàq Pinet Laprade ca Ngolngol rey 144 spahi musta am tax le 12 janvier 1800. euh, euh, euh, euh Pinet Laprade. Pinet Laprade gouverneur tubaab la il a fait ne dafay en France. waaye bi nga xam ne nekkal na fi France dafa a ak Lat Joor. daje beeg Lat Joor aussi moo imposer li nga xam ne moo doon raay bi. li nga la monoculture arachidière. li nga xam ne moo doon a bi noot nit ku ñuul ba faaw Lat Joor 1863 décembre 1803 Lat Joor bi mu ko dàqee gouverneur daal di bind ni nag ni ñu euh, Lat Joor toroxale ni mu wàññee grade France il faut ñu utiliser le canon canon ñu ngi ko jëkk a utiliser cent janvier 1844 fu ñu wax Loro boo demee tey département de Kébémer boo génnee jëm yoonu Touba boo yeggee dëkk bu ñuy wax Loro tey jii fa góor gi aale sekk dëkk am na fu ñu wax ndiiñ tool ba mu nekkoon tey jii fa ñu sampoon kano ba ba nëgë ni benn ñax du fa sax hmm. ca la ñu reyee lu bari ci Kajoor rey boobu ñu rey ci Kajoor aussi boo ma ko mayee Pape. ci la Lat Joor gàddaaye Demba War ni ko dañuy génn. ndax li kan moo doon Demba War Demba War Sall moo doon Faraka Ba Demba War mooy le principal lieutenant de Lat Joor. moo ko wax ni ko dañuy gàddaay. mu ne ko fun jëm mu ne ko nañ dem ci almaami Maba Jaxu ndax moo fi xeexal lislaam bi mu demit Demba Sukka mi nga xam ne moo ngóone Lat Joor ñoo bokk ndey ak baay ko moo jur Samba yaay Demba Sukka mi jur Jéeri Joor bi nga xamee ni ñëw nañ bay tolloog siin lako ko euh, euh, Demba War ni ko nañ jàdd nu yóg buur siin commande fen famaak Lat Joor rëyuloon dafa touti mm-hmm. biko ko buur siin xoolee ko yow yaay Lat Joor mu ne mu ne yow ni ko da ngaa luubu waaye doo buur buur day gudd ci reuy mu ni gees ni ko sans face wi maga neex la tuddoon qu'il est bon d'avoir un grand frère mm-hmm. à partir d'aujourd'hui je le nomme Malaw mm-hmm. la force di ne réside pas dans sa masse mais dans sa capacité à fendre le bois Le wax ji nga ma wax nag mu ne ko nag tudde naa ko Malaw mu ne luy Malaw Lawbe ci loolu nag la ñu waxantee ñoom ñaar nag ñu daal di jàppante nag la jor daal di gàddaay nag loolu nag day daal di doon diggante boo xam ni diggante bu sori la ndax la jor day dugg si nag ci Almaami Maba Jaxu Almaami Maba Jaxu tëdd ba guddi gis ci am ni la jor ngi dugg si mu yónni talibi bu naa Baran Siise ni ko boo dajeeg la jor na tuub dugg bu tuubul yéen ñaar ngeen xeex ba ko gàññe ñu wax si ma ko Baran Siise mi ngi jëkk ci Ibra Fatim sar ni ko naam job mu ne ko duma mu ne ko ana la jor mu ne ko mi ngi ci gannaaw mu dajeeg bu naa mu joor ni job, naam mu ne duma jóob mu ne ko ana mu mi ci gannaaw diko def ba egg ci demb war niko nam naam jóob mu ne duma jóob mu ne ko santoo mu ne ko luy sey tank mu ne almay maba joxu mooma yoni neena na lat joor tuub duggu bu tuubul nun ñaar ñu xex mu ko gis nga fas wala jébb ñeenti tank dóobu diko ko wat ba nan ko pap Cheikh lol dañ koy leral jébb ci tank yi lay doon li leen gis fas wo xamni ni tank yeb day am lu wala ñaari tànk yi am lu wex ñu dafa jeb bu ko naanee fii ci kanam bu ko wàccee ba ba fii dañ naan dañ naan dafa nañ dafa jéb bu ko wàccee ñu ni da koo naan ba ci gimiñ ci mu ne ko nag du ma tuub Lat Joor Lat Joor dajak mu ne ko du ma tuub ci dina dugg Baraan Siise ni ko almaay ma ba joxum moo ma jàngal alxuraan moo ma tafsiral ñu waxantee ñoom ñaar demba war ni ko Lat Joor yaa ngi mel dootoo ceddo li sa xol bi du fi jóg sa karaw gi day saqaat mu sëgg ñu tudd ko silmaxa jóob mu ni silmaxa naa ci li ma nekkoon lépp mm. ci la duggee nag ci Maba jox waaw léegi bala ngay egg foofu ci Maba Jaxu xam nga tubaab bi bi muy ñëw moom dafa ñëw ne dafay indi une dafa amee une mission civilisatrice mm-hmm. et évangélisatrice mm-hmm. dafa indi ne amu leen civilisation mm-hmm. waaye sax dinaa leen indaa leen suma diine ndax daf fi fekkuloon modèle d'organisation sociale boo xamante ni doon na permettre nit ñi dëkkee réew mi nekk ci jàmm am une forme d'organisation am une démocratie am nañuy forme ci ni ñuy ba tax fait mu ñëw ne dafa leen di indi nous ndax désert la fi fekk wala ndax dafa amon lu fi nekk ñi ñooñu biñuy résister lan lañ doon lan lañ lan lañ bëggoon mu mucc Tuba bi bi mi ñëw fekk na réew mi organisé hmm. fekk na am hmm. fekk na euh, bo démé Sine wala nga dem salum, fenn fu ci nekk fiñ doon falé fekk na am fekk nañu modèle d'organisation yoo xam ni fekk nañu Linguère am fekk nañu Laman am fekk nañu Farakaba am fekk nañu euh, Bummi am rôle yooyu yëpp kenn ku ci nekk doon ko doon am ci pays bi Bummi mooy lan destitué c'est le frère c'est le frère du roi fekk nañu ay lawax nekk fi les lawax mooy les postulants au trône fekk nañ kenn ku ci nekk am cër boo xam dañ la koy jox soxna Fatou Dieng wax na ko sànq ni démocratie fekk nañ ko fi parce que booba damay wax ni lépp fépp

indi impérialisme waye bobu suñu société organisé nañ bu baax a baax waaye booba dafa bëgg jaay doole bëgguñu ko jaay lool rek moko indi waye bobu organisation dafa ñëw ak yëfam dafa ñëw ak yëfam mm-hmm. Mm-hmm. indi pacotiyam mm-hmm. professeur Lamane Mbaye euh, bëggu nañ ñu taxawaat fofu aussi ci euh, lu jëm ci walum Lat Dior euh, gisoon nañu ay jamono ñu daan def ay représentation ku ci mel ne Pape Faye mm-hmm. ñuy indiwaat histoire mm-hmm. euh, indiwaatal ñu Kajoor indil ñu Bawal mais yooyu Alioune Badara Bèye mais dafa mm-hmm. mel ni yooyu professeur Labane Bèye gisatuñ ko daanaka ci nouvelle génération bi te ku ne nag xam na ne jamono dafay dox euh, génération bii mujjee lan moo tax tey ñu mel ne ñu tollook ñoom jamono ñëw ñu def représentation yi ba pare aussi programme bi professeur Labane bi tey bu ma la dégloo euh, li nga ñu jox ci ay explication loolu amaana duñ ko am ci daara yi li ñuy am peut-être li ko Pape waxee Lat Joor mu nga tëdd deqale Dior euh, xeexam digganteem ak Pinet Laprade waaye dafa am yeneen yoo xamante ne si da cee laxasu tey itam dafa jot askan wi gën a xam bu baax a baax dëgg-dëgg kan mooy Lat Dior. jërëjëf Faty loolu dama ciy kontaan trop parce que benn professeur bu mag bu ñuy wax professeur Joseph Kizerbo. dafa wax ni s'asseoir sur la natte des autres c'est s'asseoir par terre. lal euh, laltu jàmbur basang bu jàmbur boo ci toogee day mel ni da ngaa toog fi suuf. Mm. loolu wax nga dëgg euh, Aline Badara Bey. xam nga bind na ci ci ci ci ci ci ci Lat Joor mhm. Amadou Cissé Dia bind na les derniers jours de Lat Joor mhm. waaye na Ba bind na la Lat ou le chemin de l'honneur wax nga deug mhm. loolu dafa bokone ci ay ay ay fresque historique ay pièces d'histoire yo xamni ni mhm. dañu ko daan jangalé mhm. boko ko masaan sétane saw yaram dana daw boko ko masaan sétane dana def ci yow jom boko ko masaan sétane dana def ci yow ngor ñu diko théâtre ci école yi diko ko ci télévision yi donc loolu yaakaar naa ni yow defaat nga benen tay ji appel bo xamni muy euh, les programmes d'éducation yi nga xamni ne ñu koy jangal sun gone tay ji parce que damay wax ni euh, bu fekkee ni dañu ni la Euh, diw nu mu tudd nga ne nangam ñun la diw nu mu tudd nga ne nangam ñun la yow noo tudd xamoo ko bu boobaa yaakaar naa ne am na lu bari loo xam ne yàqu na mm. euh, wax nga dëgg programme yi tey war nañ ko gën a indi suñu cahier yi nga xam ne tey xale yi war nañ ko yor mm. war nañoo jël cahier yi di ci dugal ay figure historique ku mel ne mm. Lat tey ji gannaaw cahier bi war nañ ko cee def wax li nga xam ne sànq moom laa wax jël Albouri def ko ci jël Aline Sitoé Diatta def ko ci loolu mooy histoire tey jii suñ agenda yi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp mm. rafet na tey ji agenda bu fin d'année jotee ñu jël première page yi au lieu ngay jël histoire benen réew di ko ci dugal. nga jël ci histoire deuk rafet na tay ji conférence yi ni def rafet na tay plateau de télévision yi ñuy jël ay pièces histoire wala yooyu yëpp rafet na yaakaar naa ni. rafet na pour ñu indi ko ni nga ko waxee sànq. man dama ci content trop ci ñun paré nañ pour gunge ñoñu su féké ni wona ñu mënañ leen ci jàppale. légui dafa am benen question bu bu Fati bu nekk ci laaju Fati bi. moy mm-hmm. finalement kan moy héros national. Mm-hmm. ak nan lañ koy naté mm-hmm lan moy critères pour ñu d'accord ci ne kii moy héros national. Mhm. xam nga héros national euh, yaakaar naa ni lolu dafa tollu won jenn jamono jo xamni président Senghor. mo jëlone la Dior def ko héros national ci gannaaw nak problème yu bari amna ci. Mhm. kenn ku nekk xëccu na ci. waye man ci sama xam-xam ak lima gis. Mhm. dama gis ni sénégalais bu nekk rek la Dior la. ndax li la Dior doon bëgg mom ngay bëgg li la Dior doon bañ mom ngay bañ te yaakaar ni. Euh, def na ci réew mi loo xam ni boo ko xoolee ci histoire euh, ba ba muy dem déqale euh, boo xoolee Mamadou Diouf professeur du Diouf day wax Lat Joor baru d'honneur la def ndax xamoon na ne bu demee déqale day dee waaye bi nga xam ne gisee na naag xaadimal Moustapha ca Mbàkke Kajoor mu ne ko defal ni Ibra Fall ma jox la lu toll noonu da ko wax ni ko Mbàkke nee nañ ma yow a yow ba mënatuma dëpp booba ngoro ko yóbbu ndax dañuy wax ni ngor dafay ñambaas lu baree bari ni nga ko waxee sànq Pape Djibril dëgg la héros national Senghor ko def Lat Joor waaye booba sous région bi kenn amu ko fi Mali de Foucault, Guinée de Foucault, Gambie de Foucault, Sénégal moko def waaye ben, modèle lañ doon jël bo xamni modèle bo xamni kenn ku ci retrouver wu ndax Sénégal dañoo régler les questions ethniques depuis la fin du Ghana Wagadou. bo dans la vallée du fleuve Sénégal pendant le Tekrour dafa am wax la vallée de Niamandourou bo démé tay ji historiens yu mag yépp dañ ko wax ku euh, Vincent Montey wax Comme ku professeur Boubacar Bari wax Comme ku professeur Cheikh Anta Diop wax ni vallée bobu bo démé tay ji li nga xamni moy mooy wolof ñoom ñëpp dañu fa dëkkoon mhm. bi ñu fa dëkkee nag ci la cousinage à plaisanterie amee ci la amee tey ji muy kal ni nga ko mhm. waxee pap mhm. ba tey jii euh, euh, Sénégal réglé nañu question yooyu yàgg na ba noo bokk ndey ñoo bokk bàyyi problème yu baree bari bu amee boo nee Jóob kii ni Sàmb kii ni Njaay walla nga ni euh, kii Euh, euh, euh, séeréer la kii joolaa la ñoom ñëpp dañuy bokkaat ndey dañuy bokk bàyyi loolu yaakaar naa ni problème yoo xam ni régloon nañ ko bu yàgg yàgg fa dafa am ci nettali ngeen baal ma Pape Djibril fu fu fu professeur Lamane Mbaye tolloon mm. suma superviseur superviseur de de de programme mm. Pape Doudou mu moo koy fàttali léegi mm. mu ngi tolloon fu neex ci nettali ci bi nga xamee ni Lat Dior àgg na ci ba Jaxu Ba waaw bi mu eggee ci almaay Maba imaam Assane xam na ne booba jihaad Euh, daanaka deret da ciy tuuru ba mu ñëwee da koo dalal waaye bi mu ko dalalee day daal di ñëw daal ni almaami ba dama laa bëgg a may àllarba ndax euh, boo nekkee surga ci kër da ngay dem defi àllarba waaye boo nekkee taalibeet dangay ngay def àllarba mu ne ko àllarba ji lu mu doon mu ne ko euh, maa ngi génn ñëw bi nga xamee ne defal na ko loolu nag lay daal di dugg nag ci dëkk yi nga xam ne tuubuñu woon mm-hmm. dëkk yooyu yëpp nag mu leen di tubal ci la rey nag buur ngoonga rey buur gasaan rey buur Maka yob rey buur Mbayeen dugg ñaani nag mm. ba mu duggee ñaani nag jël teel a jël ñaar bi mu jëlee ñaar ñooñu nag kenn ki jël na ko ci ba am ci tey jii koo xam ne tey jii ci mbàkke mbàkke yi ñun ñëpp dañuy sukk ci kanamam di ñaan te loolu lépp ma nga jógee ci exil boobu nga xam ne moom la defoon ci Maba Jaxu ki ci des mooy euh, Selbe Selbe moom lañ jox Abdoulaye Wuli Mata Xuma mi bokk ak Maba Jaxu ndey ak baay mm. mu taaloo moom jigéen ju naa Marème Ba Marème Ba lañ jox ku ñu wax Alaaji Abdu Kan ca Kaolack moom ci soxna Astu Kan ak soxna Marème kan mhm. ak soxna ak soxna Khady Kane soxna Astou kan lañu jox xalifa Babacar si mhm. moom ci Serigne Cheikh ak i rakkam yëpp mhm. soxna Marème kan lañ jox taalaloo Lo ci Sébikotane moom ci Moustapha Lo kon histoire u Sénégal boo ko xoolee ñëpp dañoo bokk ndey ñëpp dañoo bokk baay waaye li ci ceddo gi boo demee ci sëriñ ji fekk ko ci waaye boo ñëw ci Serigne ji fekk ko ca ceddo ga muy bañ muy jom muy fulla muy fayda pam ñibbi mm. léegi beneen question bi mooy wax nga ko léegi junj ko Lat Dior dem na ngoram tax na mu jóg dem lu koy yëkkati woon wax nga ko léegi muy bañ euh, bañ boo ko doon màndargaal lu mu mën a jur ak ngor googu lan la mën a jur enjeu bi laa bëgg a wax ñàkk gi lan lay xañe ak lan la lay jox waaye surtout nga wax ñu faatu gi mu faatu moom ban njëriñ la am ban conséquence la am après xam nga euh, boo xoolee Cheikh Aliou ndaw bi mu bind l'exil d'Alburi dafa wax ni euh, moo but est de créer des mythes

ils ont tous entendu et ne guettent que ta réponse veille à ne point gémir pour ne point trahir hmm. loolu moo doon que euh, euh, je gi nga xam ni moom lañ doon def je hmm. mooy gi nga parce que Pape Djibril dañuy wax ni y a deux formes de mort Il hmm. y a une mort martyre mort qui est ni pour ëllëg lay don, ak dee goo xëy na boo ko dee da ngay nul mhm. waaye ñoom dee gi ñu dee mooy dee goo xam ne bu ëllëgee sénégalais xam ni kat am na ñoo xam ne joxe nañ seen bakkan tuur nañ seen deret te loolu moo tax armée sénégalaise daal ni on tue on ne déshonore pas mhm. ba mu dee lan lan la jur ba mu faatoo keroog ba mu daanoo organisation ban moo amaat ci ginnaaw bala ñuy dellu ci bala ñuy egg ci koo xamante ni mooy. bi mu nan nan nan nan la est-ce que parce que li ma bëgg nga ñëw foofu mooy royaume yan la woon. royaume yan ñofi nekkon nekkoon jamono boobu nan lañu organiser woon géographiquement ak ginnaw bi it euh, nan lañu ginnaw ginnaaw Lat Joor lan mo xew. 1886 la Lat Joor bañ na xexna na bi nga xamé daanu daanoon tuba bi def na lim bëggoon ndax lim bëggoon moy jël dëkk bi def ko nim ko bëggé indi euh, économie indi politique indi diineem indi modèle d'organisation ay jikkoom mm-hmm. not nit ñi mm-hmm. loolu la bëggoon loolu tax góor gi Mamet na bu daan wax naan biñ ñàkkee Lat Joor lañ fay lempo dem soldaar mm-hmm. ndax loolu lépp musta am loolu nag yaakaar naa ni ñàkk Lat Joor ñàkk ñu mel noonu moo tax ñu daanu ci tubaab bi nag daal di jël nag li nga xam ne lépp bëggoon na ko daal di koy installé nag foofu lañ ci yegg réew mi euh, royaume yi nga ñëwaat ci rapidement rek bala ñuy dem ci beneen figure. Mhm, waaw ma dem fa Fati. Euh, euh, royaume bi nga bëgg wax man moom beneen figure laa bëggoon ñëw. Mm-hmm. professeur Lamane Mbaye muy Ndate Yàlla. ndata yàlla xam nga boo nee Lat Joor itam wax jëmbat ak ndata yàlla mm-hmm. ku ne xam na ne waalo tey ku ko wax mm-hmm. faaw nga tudd ndata yàlla digganteem ak fédéral bañkat bi ak soxna su su am xam nga jëmbat ak ndate Fatim Xure yaay loolu dégg nga ko ba tey yaa nga waalo ñooñu dañoo def ci histoire loo xam Euh, yaakaar naa ni ba suñ jonn tey dañ koy waxaat li nga xam ni moom lañ ci jëkk a jël nag mooy mooy mooy ndeer gi nga xam ni euh, fekk nañu Brak dem dem dem dem Saint-Louis di faju ji ñu bett nag dëkk ba bañ leen betteet euh, dañoo ñëw fekk jigéen ñi ñu ñu nekk fa góor ñi ne ci tool yi ñoom ñëpp nag ku mel ni Mbarka Dia mm-hmm. ku mel ni ku mel ni ku mel ni ku mel ni ku mel ni Ndata Yàlla mm-hmm. waaye ku mel ni Sédani ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon daanaka ñoom lañ jël nag bëggoon leen a jàpp ñu dugg ci ay néeg taal seen bopp loolu yaakaar naa ni euh, histoire retenir na ko ci mm. kenn dootu ko fàtteeti mm. waaye xam nga ni tam euh, Sidia Léon moom itam Euh, boo nee waalo kenn mënu ko bañ a tudd ndax foofu lay bokk. Mhm. jom ji nga xam ne moom la am ba dem Algérie ba ñibbisi waaye moom itam euh, bi nga xamee ni jóge na Algérie sol yëre yu tubaabam. Mhm. na foo xam ne sew sew bu mag am na mhm. ndax bi mu gëstoo ni ma géwélam bi dañu la wooy mu ne ko la tax la ndax booba français lay wax yëre yu tubaab lay sol <laughs> ci la jëlee ay yëreem xotti ko. Ah. daal di yi nga xam ne moom la waalo amoon. Mm. daal di siwaat ci moom. kooku yaakaar naa professeur mm. juste foofu rek li ci bëggoon taxawandi Pape Djibril am nga tey bu ñuy wax jigéen ak gëdd bi mu ko jox yaakaar naa ni ñu wax naan euh, droit de la femme place de la femme dans la société loolu boo xoolee fii Sénégal euh, fi lañ ko njëkkee ndax yaa ngi koy wax ku ci mel ni euh, njëmbat ba mu ci jógee jox nga te yàlla ku mel ni te bu Boubou Aline Sitoé Diatta soxnay ndeer yi mu mel ne tey buñ doon lim dafa bari waaye dellu si def taxaw seetlu won rek àddina ne jigéen fii dañ leen a yàgg jox seen gëdd te itam dañoo taxaw dañoo yàgg a jiite xam nga Faty loolu dama ciy kontaan trop ndax bis bu nekk ma ma wax ko

mu génn ñëpp ci néeg bi daan di bàyyam maa ngi yow dañ ni dañ ni nuróole bàyyil ma ma war sa fas wii bayma ma sol sa dal yi sol sa mantu bi ak sa mbaxana mi leen dong lay soppi turu fas wi. mi ngi tuddoon ma nga ne waaye bis tey ñoom dañ dan am ay fièvre di am ay épidémie mm-hmm. euh, di jël ay mesures. Ah, mais pap pap lolu dafa na parenthèse le bo xamni mm-hmm. euh meun nañ ci ñëw war a ñëw dellusiwaat ci euh, ci ci lapsu kaabe. Mm-hmm. xam nga ni déjà 1616 amon na fièvre jaune bu mag bo xamni amon na ci Sénégal waye xamone nga ni aussi euh, choléra ñëw na ci vallée du fleuve Sénégal bo xamni professeur Pam def na na ci liggéey bu mag a mag en 1868 1869 l'immoralité mu rey ci ay nit kenn xam 1914 aussi la peste gis nga liggéey bi nga xam ne moom la fi def kon feebar yàgg naa am waaye nañ ko aussi boo ce soo la lartikaa bi ngoone jéy bi mu des mënut a jóg ngoone lartir doom ñi moo ni ko sèche Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval, laisse-moi porter ton manteau, ton bonnet et tes chaussures. La seule chose que je vais changer aujourd'hui, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. À partir d'aujourd'hui, je nomme le cheval Ndeel Nek, secret de chambre. ñi ci biti buñ ko xamee ñi ci biir ko nettali ca yaakaar naa doo ko wax. moo sol dali baayam sol waxanam baayam bi mu génnee comme moog baayam ñoo tolloo. tubaab bi gañe na tubaab bi na professeur. comme nag bi mu génnee bi mu génnee. tradition orale bi. tradition orale bi laa bëgg lay joxe. ñu <laughs> ko bindee ci français bi bi mu génnee comme moog ñoo tolloo bi mu génnee. <laughs>

ñu naan gagné nañu ci la dëndi nag mbaxana mi létt yi génn mu ni góor baax na jigéen baax kon mm. faati li mu wax sànq mm. yaakaar naa njàmbaaru jigéen dafa feeñ mm. waaye yaasin boobóot njàmbaaru jigéen feeñaat na fa mm-hmm. ndax moom itam maajoor fatim goleñ wut na pouvoir fu nekk Euh, Amari Ngoone Sobel Massamba Tako ma xura jëkkuli Birame Ba nga xura jëkkuli Daaw Demba xura jëkkuli Damel Maajoor Maajoor mhm. moomu nag mhm. ma wut pouvoir fu mu demee ba di ko jël rek am lu ko yàq mhm. Saalum la mujjee benn sëriñ jox ko saafara ni ko boo ko booleeg dereti garmi dans les quarante huit heures ci ku mu ko wax ci jabar yi rek nga ni ko bëgg naa la lool waaye njariñ la fekk bi mu ko waxee Yaasin buubu dani ko mbaa waxu ko kenn bu kenn ma nee dem man dem ndax bokk jenn deret waaye leen rek moo sama doom ji may suma ma leeree ni bu ma fi jógee mu nek ci loxo yu wóor mën na ma dem. ila euh. xalam ay été inventé au 17e siècle. au 17e siècle. mom lañ na Biram yassine bu bu yapul ma ngay nan euh. muy mbanga mom lañ ñuy xalam noonu. Biram Yaasin buubu Biram Yaasin wax nañ ni dañoo bëggona a ci wène wi rek ndax li wala wax sank ni la épopée bokul ak histoire. Mhm. amna ñu wax ni yassine bu kenn reyu mais dañu bëgg safal dañu bëgg a mhm. ben serigne sëriñ bu ñu wax serigne Ngen Seydou sëriñ yaxase yi dëkk ngeen sëy moom lañ wax ni mm. moo joxe ordre ñu ñu gàjj ci ween wi mm. deret jooju lañ maase benn téere am ñu ne dañ koo sacrifié mm-hmm. waaye li ci am rek mooy épopée bi ni mu ko waxee ak Ibrahima Sall ni mu ko bindee ci crépuscule invraisemblable Yacine Boubou bis bi ñu ko war a sacrifié maajoor da ko fàtte moo sangu ba set sol yëre yu weex tàll jël ween wi jox doomam mu won a gannaaw mu fëgg bunt bi ni ko maajoor réveille toi il est l'heure loolooy njàmbaaru Sénégal ak jigéen voilà dinañu ñëwaat comme ni ko Pape Djibril waxee ci yeneen i euh, figure mm. waaye li ma ci metti mooy ci ku ñu dem rek mm. du du doy cest à la joor kenn du ci doyal dinañu ñëw ci euh, faal geeg jóob gi solo ay tak kontoog Samba ak Fan mang ngi ma xuri jàpp joor daañu ñëw ci lingeer yi man xam naa ne suba ci duggee sax dinaa soppi jotaay bi ak xawaare mais tey dañu bëgg a temps yi ah démb ak tey yi ñu war jàng eh, mm-hmm. eh, ci wàllu organisation doxalinu réew dinañ mm-hmm. eh, ñëw itam ci point e bu am solo te loolee xam oustaz Assane waaj na ko pour waxtaan ci ak professeur Lamane Mbaye ci buur yi ak wàlliw yi ni ñu meloon tey kër wàlliw boo dem Euh, ding fa fek sëtu bour wala domi bour waye wàlliw boobu bo tagit euh, ding ko tag ba ci bour exactement loolu dañ ko détaillé euh, ci diggante diine ak li fi buur yi def hmm. ak professeur Lamane Mbaye mi nga ken dotul ni kenn xam-xamam ci histoire bu Sénégal réew mi nak dafa bëri hmm. ay nit yo xam ne dinañu costume karwaatu hmm. waye bo seetee ba ci biir seen passion moy histoire du Sénégal passion yoyu nak dañ cee ràññee ko xamee mo moo soleil di sunu kilifa di sunu mak di sunu xarit ya xam Mbaye mu ngi ci euh, téléphone bi euh, ñu ngi lay euh, participation bi quartier général di la Ndokel, monsieur le directeur Allô Allô Allô voilà donc euh, euh, je pense que Mugiti ngi euh, mais certainement c'est un problème avec réseau bi Yakham directeur général bu Soleil Bougon intervenir par rapport à guddi gi Yunas ñu nas mm. jagleel ko mag ñi waaye ci beneen fànn te ñu koy développer rek ci tënk ak héros yu bëri yoo xam ne ni bëgg nañu leen waxtaane moo xam yu góor yeeg yu jigéen yu jigéen na ñu faati jot lim waaye daañ ci ku mm, kanam Joor mhm. ci euh, Lat ak taxawayam Lat ak yenn ci rencontre am Lat ak yenn ci ay mbiram mhm. euh, ci euh, histoire lolé lañuy waxtané directeur général bu Soleil di sunu mak di sunu xarit di Yaxam bay bu féké nopi na ñu joko ak mom Yaxam ñu ngi lay nuyu contane lol ci participation bi tay ci guddi gi ci télévision Futur Média di la ziar bu baax Allô

waaw xam nga Fall la war a sant Diop la war a ci ndeyam la ko jëlee ci góor la ko war a jëlee ci jigéen la ko war a jëlee mu wóor la ni euh, histoire am na sax ñu bi muy faatu nekkatul dammel. voilà voilà boobu Samba Laobé wutu na ko. y a eu ba léegi polémique baa ngi desandi. nga xam nga euh, loolu loolu loolu bi mu daanoo ba noppi la am. Hmm. waaye Lat Dior il est resté il est resté dammel xam nga nag booba tubaab bi ñëw na jaxase yi bari na. Euh, li professeur Mamadou Diouf di wax les forces centrifuges ndax booba le transfert de la capitale bi Lat Dior yóbbu Kër Amadou Yàlla indi na problème ndax am na ñu ko bëggoon a transférer à Mboul garder ko ci l'ancienne capitale yooyu yëpp bokkoon na ci ay problème ba paré booba euh, xex bi yàgg na mag ñi xex nañu bo xamni amna ño na ñoo xam doyal nañ ci xex yi parce que booba tam amna na ci ñoo xam ne daanaka lekkatuñu tam euh, feebar yi bari na ci all bi Euh, jur gi lekkatuñu yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ni dem na ba nga xam ni daanaka boo xoolee déqalee pratiquement nit ñi sonnoon nañ ci xere yi sonnoon nañ ci xeex yi ni ko sama pap Sangoné Sall di wax mm-hmm. ma ci nuyu bu baax Samba Fall Thiébo moom itam ni mu ko waxee ni Sénégal boo ko dee xool dafa mel ni gerño gi dafa dagg moo tax dañ ko war a takkaat ca takkaat googu yaakaar naa ni ci loolu lañ nekk ci la historiens yi nekk ci la traditionnalistes yi nekk mm. mais Pape euh, Lat joor ba bi muy faatu damel la effectivement mm. mais booba nit ñi sonn nañu yaakaar naa ni loolu bokk na ci li nga xam ne aussi euh, mm. bokkoon na ci euh, li nit ñi xawoon na doyal ci xeex bi ba bi muy daanu tey jii dëkk ba nga xam ne daje nañ fa mën ak yow muy ndànd Malaw foofu la daanu la tombe de Malaw mi ngi nekk Euh, à quelques encablures de la gare de Ndande fu wax Dakar Lamine li ci wax bari na lool waaye boo demee tey gaaru Ndande di nuyu waa Ndande yëpp ñox ñoom ñëpp ñu ngi seetaan émission bi Ndande googu c'est à moom à quelques kilomètres de Ndiongue Ndiongue la coach Barma dëkk Melam, fa la nekk waaye xam nga la gare de Ndande fa la le dernier tronçon quel Kébémer Ndande googu la nekk xam nga ne Ndande Gogo. fa la Serigne Touba yónni ñaari seex loolu bariwul ci yoonu murit mu maam Cheikh Issa Dieng borom Dieng ak Lagan mhm. waaye ku ñox maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñaari seex yëpp yónni leen leen ndànd ndànd aussi boo demee ñetti kilomètres yaa ngi ak Andoulaye Andoulaye nekk dëkk boo xam ni euh, moom itam dajale na maam Serigne Touba maam Seydi Hadji Malick

seti nga ko daw mm-hmm. fekkante nañ fa kër vieux may sa mbay sal mm-hmm. mum gor gi makodu sall moom mm-hmm. bunaama jor mum demba war kooku aussi nek li histoire bu kajoor ni ko cheikh waxe kadior dafa riche kadior la fa nek yaakaar na ni buñ ko don net li ba euleuk dar duñu xaj ndax bo demé tay ji bo tuddé la jor fo nga tudd demba war wa këram ga nga fa wa kër ma makodo nga fa waa kër wa wa waa kër samba kangé nga fa lolou nek lo xamni histoire la bo xamni ne na ni histoire bu riche sha allah ya xam ya xam mu ngi ci ligne bi euh, euh, bu fekke jàppandi na ñu euh, joko ak mom allo Allô, pape. Allô Allô, pape. Allô, allô. Allô alors ñu koy dégg normalement ci antenne bi mais ñun dégguñ ko euh, euh pour mën euh, waxtaan ak mom ndax euh, nit mom bo bëggee sa réew rek à la coulière da ngay bëgg da ngay bëgg ciossane mm-hmm. voilà d'où importance su participation am tay ci quartier général bi malheureusement techniquement peut-être on n'arrive pas à dégg ko ci studio bi ñu nekkee allô Allô, Pape. voilà enfin <laughs> directeur ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay. kontaan nañu lool ci participation bi. maa maa la gën a kontaan maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Jibril, di nuyu professeur Laman. Mm-hmm. ak ñëpp ñu nekk ci plateau bi. jërëjëf. waaw wax bi nag daf ma intéressé trop. Mm-hmm. bi may laata intervenir sax dama wax ak sama sama mbokk ministre Abdou Ndende Sall. Mm-hmm. donc professeur Laman wax mu wax daal dafa ma ma yëngal trop ma ne woon naa intervenir et puis profiter waale si mhm. comme que moom macha allah borom xam-xam la laaj ko ay mbir mhm. yu ma mën tënk ci ñaari poñ mais balaay boobu rek pour professeur lamaan xam naa mi ngi may dégg mhm. ma ne ko li sabablu ma intervenir parce que man faraka yaa xam mbay mooy sama maam moom lañ ma tuddee war a kaw mooy càmm ñu Dior Ndende hmm. te soo demee ci côté eh, Abdou Ndende Dior Mbaye Ndende moo jur Demba Waar dëgg la hmm. Demba Waar jur jëwriñ may sa mbay sal dëgg la jëwriñ may sa mbay sa eh, mbay sall jur ma sàmba sal hmm. ma sàmba sal jur may sa mbay sal may sa mbay sall jur Abdou Ndende Sall man sama côté maa ngi meññee ci Faraka Bandenda Mbay mhm. mu jur Samba nar bay Samba nar jur ci Mbay Samba nar bay mhm. koku jur Dërgën bay mhm. Dërgën jur galom bay galom bay moy sama bay hmm, direct donc sama mbok lañuy wax dëgg mais won dal na laaj professeur Laman ñaari ponk yo xamne ba récemment ma ngi ci doon gëstu mu xawma salman jaaxal parce que sama nijaay eh, sangone sal ma ngi doon wax ak mom ya deux semaines benn équation bu ma am est-ce déqale la tëdd parce que dama yaakaar ni même féewalee bi am diggante Demba War sama maam ak Lat sama maam réeroo amoon na mais defe naa am na benn pacte bu ñu ma ni Demba amoon na ko tubaab bi su de su Lat tëddee néew bi mu jël ko parce que tubaab yi temps yooyu dañu amoon euh, euh, ay pratique yoo xam ni. Mhm. li ñuy def ni suñ la daanee. jërëjëf toroxal la dagg sa bopp wala dagg say loxo exposé ko. donc dama am jort que ni sàmbaw bi la jor daanu déqale. Mhm. dembawaar da ko këf. te sàq la la jor wa tëdd. parce que sàq fa la dembawaar tëdd ak jor mbay ndende sama maam. Mhm. dama ragal ni dembawaar dafa këf néew bi suul ko sàq. deqale la tëddee mais sàqlal la joor wal tëdd mais awma ci nag mënuma ko affirmer mm-hmm. mais ci d'après gëstu yi ma am tuuti samay maam ak sama maam dama def nag lajoor lajoor tëddul deqale mais sàq la ko demb waar nëbb parce que bëggul woon tubaab mm-hmm. bi profané dépouille bi beneen question bi moo koy laaj mm-hmm. mooy gëstu naa ci mais awma ci toujours lu ma leer mooy bataayu gille xare gille parce que xare gille mi ngi opposé d'un côté Lat Joor mi ngi allié woon boobu gàddaay na tubaab bi sonal nañ ko mu gàddaay dem ci Albuuri mhm. bon te Albuuri Lat ak Samba benn darat la mhm. parce que Lat Joor su ma juumul professeur mën na ma lijjanti dafa naa nijaayu Albuuri Samba Lawbe la ah, mhm. te su ma juumul peut-être moom ak euh, Albuuri ay cousin donc temps boobu féewale yi am na ba nga xam ni ci xeex boobu Euh, Lajjoor boobu Albuuri mi ngi ko nëb mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko dalal. Samba Lawbe songu leen donc xeex boobu ay xeexu mbokk lañu mais Demba Waar loxoom génnu ci. parce que dañu quelque part peut-être sax Demba Waar moo sauvé Samba Lawbe. ci xeex boobu parce que xeex boobu Albuuri ak Lajjoor euh, dóor yi ñu dóor Samba Lawbe ak ñooñam ñi mu àndoon dafa metti donc am na ay gëstu yu ma ci gëstu mais leerul donc su fekkoon mën nañu xamal xeexu gille boobu nan la demee ak lan moo ko sabab ak xeex bi ni mu déroulé woo ak euh, nu mu mujjee donc ñaari question yooyu daal si sim gëstu yi may gëstu moom laa bëggoon mu mu mu leeral ñu effectivement historiquement et la Lat Dior dafa daanoo deqale mais suuluñu ko deqale parce que suñu bare suma maam ñi ma doon wax di ma ne dëkkale la daanoo mais dembawaar dafa këf néew bi suul ko sàq te sàq boobu moom fa la dembawaar tëdd ak jor mbay ndene mi nga xam ne moo jur euh, mooy suñu maam moo jur dem moo jur moo jur dembawaar moo jur bunaama ah moo jur moo meññ ñëpp daal parce que defe naa mm. dembawaar joor euh, mbay yaaxam xam farakaba ah. farakaba yaa mbay bi ñu mu tuddee moo doon càmmiñam mm. joor mbay moom meññi dembawaar mm. dembawaar meññi jëwriñ may sa mbay sal mm. meññi samba ma samba sall may sa mbay sal bi jur abdu ndende soo demee tuuti ci fànn bi tamit farakaba ndende yaa moom meññi sambanaar sambanaar meññi ci mbay sambanaar mu meññi dërgën kooku meññi galo Gallo mooy suma baay donc loolu laa bëggoon daal mm. Euh, mm. professeur Lamane su ci mënoon euh, leeral mm. jërëjëf Pape voilà merci beaucoup yaa xam euh, ñu ngi lay gërëm bu baax yaa xam Mbaye directeur général bu Soleil doon am yu mu laaj ci ay ponk ñaari points yu am solo bu ñu amaatee itam keneen ñu jëlaat ko bu ko defee jébbal laaj yi moom nag direct ci bu naa ma Dior Mbaye Ndenda ci Dior Mbaye Ndenda te doomi Dior Mbaye Ndenda yi daaw ñu daw dañ daan jeex pap mangi mangi maa trop ci dugg bobu nga xamni mom le directeur général bu Soleil dugg di ya xam ndax mom touram rek fay adresse bo xamni ku ko deg xamni keur dembo Demba le la tëdd la ndax ñoñu mu dëkk tuddu ñëpp keur dembo Coro lañ dëkk. Mm. Omar mo bayiko foota and ak dial mbub ak dial cham ak Arendé Sari ak bakari geey mm. bi ni ñew kadior ko ci baramal Fall bi nu ñëwee kenn xamul kenn ku nekk foo bokk bi koci bar dañoo rain ci Kocc Barma ñu ni ray nañ ray aw nak buñ ko rayé kenn ku nekk la nga mom di ko jël bi ñu wi mejri Umar mo jël bopp bi ñu ni ki moy bur bi jaal mbuub jël bopp bi ñu ni ki moy geewal bi jaal cham jël xalam bi ñu ni ki moy teug bi ana jaal ma ci ayre mom ak jaal mu neex ma wo <laughs> kenn ku ñu nekk bi ngay jëlé sey cër ñu daal di may Medjiri Umar Yësëb Diagne mo am ci may Yësëb moy mami ñoo ñi lolu mu laaj nak di question bo xamne amna importance trop ndax pratique bobu mu wax ni tubab bi da ko daan def bu gagné nit ku ñuul ñu ko jëk def ci jéeri jor ndel bop jéeri bi bi ñu ko daggee samp nañ ko marché chef ba indi na dafa problème bo xamne xex yu bari mën na ci am wax la ne li leen lima gëna metti moy bop bi ñu yobbu en Europe ca boo demee ñi ngi ci bind tête d'un rebelle indigène kon yaa xam wax na dëgg. alors ko bopp jéeri la. bopp jéeri. mu demel Samba Yaay Fall. mu demel Samba Yaay xam nga jéeri dafa xaru bàyyam Samba Yaay dafa xaru. Hmm. Euh, loolu mu wax ni teg na ci euh, démb waar teg na ko ci fas mënuma wax ni lu am la. mais li ma xam mooy dembawaar bi Lat Joor daanoo bëggul woon tubaab bi dagg bopp bi comme ni ñu def jéeri am na ñu wax ni muslaajug biram fari mbay la ko denc sëriñ muslaaj boo ko denc

benen question bi mu laaj euh yakarna mi ngi ko laaj ci amna na leneen lu mu wax aussi moy li ñuy wax ne confiance bi dafa rompron entre Demba War Sall ak Lam Dior. waa xam nga xam nga lolu sama benn professeur bu ñu wax Mamadou Diouf bu nekk tey ci Columbia University dafa bind benn article tuddee ko Lam Dior Demba War trahison ou conflit d'intérêt mais ñoom dañoo bokk lépp. ca Demba jàppale Lat Joor ci lu baree bari ndax dafa wax ni Kajoor dana sant Jóob mbaa mu sant Njóor la bout du fusil kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk euh, dafa jeex waaye kenn ku ci nekk ngor nga demee ba mu jeex takk muy Lat Joor muy Demba Waar Joor fal na ko lim ko war a fal Demba Waar jàppale na ko lim ko war a jàppale lépp bëggoon naa ñëw ci deuxième question parce que dafa ma rëcc mm-hmm. bu fekkee ni yaa xam mën na jël si waat parce que deuxième question bi xaw na ma réer tuuti bëggoon naa ci marqué trahison bi la ah, euh, il y a pas eu de trahison en réalité. amul trahison. amul trahison conflit d' intérêt moo conflit d'intérêt intérêt mooy conflit d'intérêt intérêt mooy. kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg taxaw na. ku nekk lan moo nekkoon bëgg-bëggam seen bëgg-bëgg mooy euh, Demba War bëgg-bëggam mooy xare yi. bari na ni ko Sampap Sangoone Sall di waxe hmm. xeex bi metti na nit ñi son nañ ci xeex bi doyal nañ ci ay xeex dafa kan lañ doon xeexal xanaa bokkuñu woon ennemi. tubaab bi lañ doon xeexal mais boobu population yi sonn nañu. ok lan moo tax Demba War changer de fusil d'épaule noonu ba bëgg ñu ñu terre les armes lan moo tax. non il n'a pas changé de fusil d'épaule. Mm-hmm. il n'a pas changé de fusil d'épaule. moom musul bëgg xeex bi. non moom dafa dañu xeex xeex bu méttee métti pendant pendant de longues décennies. Mm-hmm. nit ñi xeex nañ ko. Mm-hmm. nit ñi dem nañ ba sonn am na ci ñoo xam seen famille daanaka décimé nañ ko jur gi amatuñ lu ñu lekk am na ay famille yu am il faut que la paix. mais Demba n'a jamais collaboré avec l'ennemi. Euh, à, ce que je sache il n'a pas collaboré. conflit ah merci beaucoup deuxième question bi je xam poser. Ah, oustaz oustaz oustaz content de notre question bi à poser. mémoire de maîtrise. Mm.

yaa ngi ma doon sànq danañ ñëw ci Alboury. xam nga Alboury. cousin la Joor la. Kan ko du bigé xam nga ni euh, bi ñu reyee Birame Penda Ndiémé Ndiotté dañoo jël Alboury indi ko Kajoor mook Samba be ñu bokk yaroondoo dañ daan coupé coupé bu ñu ko daan def kenn ku ci nekk da nga yor sa ngarul fetal bi ñuy coupé nag ñoom ñaar ñu dem ba tampali ko ñu xeex ñu àtte leen bi demee ba nekk mag nag Samba bi ni day fekki day day fekki Alboury am na ñu wax ne Lat Joor dani na ngeen yóbbu cere ju amul ndawal ndax seen bopp ngeen di fekki ndax li ci kajoor li ci kajoor mooy la fee ca jolof ndax benn maam ñoo ko bokk alburi Seynabu Seynabu Amadou Yàlla Amadou Yàlla saa xewar fàmm Amadou Yàlla dem jolof ñu jox ko Faatimata Nguy maam ci Seynabu Jóob ñu delloo Seynabu Jóob boole fukki ñu góor ak ñu jigéen jox ko Biram Penn Njéemé Njote moom ci alburi kon ñoo bokk lépp Samba Laobé Khourédia Mbodj Ndiak Khourédia Mbodj démb subaa ko jur mu bokk ak Lat Dior. kon ñoom ñëpp a bokk. ñoo bokk lépp finalement ah. c'était c'était c'était les mêmes familles c'était ça les les conflits aussi finalement nijaay ak baay ñoo ñoo daan xeex boo gisee la bataille de Guy Njulli Samba be la Lat Suksira Jogob moo xeex ak Makodo doomam ñoo ko ñemeeg dee luñ daan xeex ñoom noonu doomam la xeexal la bataille de Njool Baaxoñ Massamba Tako moo xeex ak waaw le pouvoir. xeex na xaru c'était un enjeu. xeex pouvoir. rek ngay dégg mais quelle était la place du Toubab tubaab bi ndax bi mu fi nekkee ndax bobu aussi moom ngi fi di di di di di di doxal mission bi tubaab bi ñëwul daan nañ ko def waye bi tubaab bi ñëwee da ko yok wax nga dëgg bi tubaab bi ñëwee limu def moy diviser pour mieux régner. day ñëw ci Alaaji hassan da di signer traité nga xam ne buy dem di xeex ak Pape Djibril Alaaji Assane du ci mën a bokk mais bu reyee Pape Djibril day ñëw daal di signé ak Pape Cheikh attaqué Assane donc noonu def wut allié <laughs> loolu moo indi problème mais en tout cas ñu xamal ñu xamal yaa xam ne ko effectivement la bataille la bataille de la bataille de Guilé la bataille de Guilé dafa doon bataille bu doy waar c'est vrai hein, ba léegi yàgg nañu ruube en fait la bataille de Guilé dafa doy war, ndax de part d'autres des deux camps mm-hmm. ay famille doo nga ci nekk am nañu jógee fi dem fële am nañu jógee feulé dem fi bo lajé les griots de Kajoor bo len lajé la bataille de Guilé dañ koy nettali comme une escarmouche comme xex bu ndaw ndaw dañ na la tel guerrier n'est pas parti wala tel guerrier bi mu dem yobul fasam bo lajé les griots di dañ ñu yóbbu combat bi fo xamni dañ koy jox des envolées

Ah, am nañu xeex seen baay am nañu xeex seen rakk c'était l'ange du pouvoir et l'honneur Majoojo Fall ak Lat Joor Majoojo dégg ngeen kon moom la jëkk a xeexal Lat Joor moom la jëkk a xeexal am na ñu wax ni booba sax mi ngi ci lël moom la jëkk a xeexal dàq Majoojo mais nee nañ aussi jojo tuba bi moko ko dooleeloon merci beaucoup ça c'est vrai c'est le seul damel d'ailleurs qui a dont l'intronisation a été faite par les blancs d'accord ah, mais xaru bi nag professeur waaw xam nga xam nga xaru fati mhm.

Samba Yaay débbasu ko dañ ko yóbbu Saint-Louis en résidence ñu fekk ko wax waxu ko ni ko débbasu ko ko ak euh, Ngori Latine ñoo bokk ndey ak bay bi mu ñëwee ne tubaab bi dama bëgg dem ndax sama yaay dafa jalé ji sama yaay dafa gaañu damay jalé ji mu ne ko yoo xamoon xana xamoon dañ la japp. ci lako waxé waxee ne ko xaw dañ ma japp, bi ni julli tisbaar la tabbi ci dex Mom lañ naan ku dem ndar jéggi bamélam. Hmm. Lo do ngoy laaj tey jigéen tey jigéen di ko laaj loo doon hmm. mais xam nga man dama lay wax sama sentiment <laughs> xam lañu naan histoire tamit xam naa ne sentiment bokku ci. mais man dama lay gis nga waa ji fi dugg si woon gan googu ñu am muy tubaab bi. dama ko wóoluwul ndax xam nga Omar Blondin Diop sax. dañ ñu xëy nañu dafa suicidé wu. gore te dañ ko tëjoon. Mm-hmm. est-ce que ñun tamit ci mag ñi ñu ñuy wax ne dañu xaru. Mm-hmm. est-ce que amu ci ñoo xamante ni gars yi ñoo doon def seen i pexe. est-ce aussi à l'époque il n'y avait pas des collabos. si il y a mais qui a Bon, bon lire, bon lire de l'histoire de ce pays il y a eu des collaborateurs il y a eu des collabos comme dans les résistances en France À mon ay ci biir ci biir guerre bi amoon ay collabos mais fii aussi amoon des collabos. Mm-hmm. bataille dans partout à mon fa. mais mais mais professeur. foofu Lat Joor ñoom ñëpp dañ daan gis euh, seen i géwal dañ leen daan wër. di leen di leen bàkk mhm. loolu aussi euh, mu mel ni lu leen daan euh, tax ñuy gën a am euh, ñuy gën a dëgër dëgër ci seen taxawaay parce que ñoom ñëpp suñu maam yi buñ buñ leen dee way mhm. valeur lañ leen di way c'est ça mais mais Pape Cheikh li gënoon a métti mais ñu wor li gënoon li a métti war nañ ci mën a taxawaat jamonoy tey jii c'est très mhm. xam nga li gënoon a métti mooy dugg néegu góor ci yooyu jamono ci yooyu jamono c'était une méthode traditionnelle. dooni doo doo doo dooni honneur ngay wone. c'est pourtant dans des conditions particulièrement difficiles. nga xam anesthésie amul. lépp ngor nga koy jaayee. buñ la jamee bal dañ dañ daan rukkaab xam nga rukkaab mooy lan. dañuy jël suuf su tàng jër lañ koy faje ak ki lañ daan faje ay plaie. Dakar la ñuy dëb ba mu mokk ba mu nekk ak ñu jël sunguf si di ko ci def wala yu mel noonu moom lañ ko daan faje traditionnel ca doo jooy doo wone benn déshonneur. suusalu kaani xeeñ lañ daan xeexee. suusalu kaani fas la. Amadou Mokhura Dia ko moomoon Amadou Mokhura Dia ak Lat Joor ñoo bokk sa xewar sax du mbay. Amadou Mokhura Dia jël Fatma ñu jox ko sëñ ñu ñu jox ko sëñ Modou Moussa moom ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma. gànkal mi ci Touba ni wala. waaw Pape Cheikh gis nga dafa mel ni ñoo ñun ñi ñëpp ak ñi ñuy seetaan ñoo ngi mesurer immensité liggéey bi gis nga sax daanaka boo xoolee ba ci travail scientifique bi solo si moo tax euh, xawma histoire général lay tudd xawma lu muy tudd mais nécessité bu mag la ngir ñu ñu ñu am ci le cœur net ci yu bari. Mhm. parce que loolu dina dimbali ñëpp ndax tey gis nga débat bi sax dafa soulever waat mhm. yeneen débat mhm. waaw et c'est ça qui est intéressant mais solo si moi, que nous xam nous ñu réconcilier histoire parce que nous permettre de faire un bon bu am solo gis nga gis nga gis nga Pape Djibril rew yi nga xamni ñoo raw histoire en 1945 le Japon n'existait plus sur la carte du monde la bombe du 6 et la bombe du 9 mon prof histoire au terminal. ma daan wax si la bombe du 6 août est d'une nécessité militaire celle du 9 ne se justifie pas parce que le Japon tout na ba pas. mais le ko a Hiroshima Nagasaki mhm. Hiroshima et Nagasaki mais 23 ans après ils ont lancé le premier TGV organisé les premiers Jeux Olympiques li ont ko may l'esprit zen tey de demee Japon li ngay ñu Kawasaki Mitsubishi ay Toyota ay tour la. Hmm. mais mais mais c'est des familles. mais professeur ñoom Toyota xam naa ñu bax lañu nak tay ji bo boo ñom ñoom Honda. <laughs> tey jii boo jëlee Hiroshima Nagasaki. alaaji Honda ya baax man de ko euh, teg nga jël débarquement bi fële ci France. oui nga jël yenen yenen barap yu symbolique oui mais tay di nga gis xalé bu mag ci réew mi ba am 50 ans wala 60 ans musul dem Camp roy c'est vrai hein loolu c'est c'est une réconciliation avec nos lieux de mémoire. Ah, parce que dañuy wax ni on ne peut pas vivre avec une mémoire d'emprunt. mais lieu de mémoire boobu ñun ba ci les chefs d'État man dama koy wax ba sonn damay wax ne président Macky Sall wala président yi fi un mhm. discours yu mémorable yoo xam depuis Gorée nga koy defee. exactement mhm. depuis Gorée tu parles au monde entier. exactement parce que loolu mooy sa histoire depuis le camp Thiaroye mhm. ñaata nit lañu fa tëral rey leen. te defuñu dara au contraire.

Euh, yenn yenn yenn héros yi. Mhm. boo demee tey jii. Mhm. c'est des lieux de pèlerinage. Mhm. c'est des lieux yoo xam tey dañ fay dem tey suñu élèves yi rafet na tey yenn sortie pédagogique yi. nga yóbbu leen tey ci yenn sites man man par exemple doguma la mais boo jëlee par exemple ceytu. waaw bi Cheikh Anta Diop tëdd. mais man à ma souvenance gisaguma un président de la République du Sénégal bu fa dem gisaguma ko. finalement qu'est-ce que lan moñu dal en réalité li li war do wax lu dal suñu askan. momadou ndjay damay damay damay damay ñew rek euh, appuyer ci li nga wax. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi non, non démb ba est-ce que professeur nek fi batay tamit. ba tere ñëw def loolu mm-hmm. est-ce que noonu démb ba changé wul visage Changer jëfine ak waxin. Mm-hmm. ndax amna ci lo xam bo ci muccé rek mëna affirmer wu affirmation de soi bon. lan mo tere ñu dem ci loolu ndand bi nga fi tuddu léegi ak patrimoine immatériel bi fa ni mu amé solo. té ndànd daanaka li may tooñ sama mbokk waa yi ah. di leen wax ne leen daanaka dafa mujj rek nekk barab boo nay barab yëpp te yemul ak barab yëpp. Euh, euh, loolu loolu dama koy dama koy dama koy lancé parce que fala juddoo. fala dëkk doo ko dem Kébémer. mais euh, ndànd dafa nekk dëkk boo xam ni symbole ya fa nekk dafa bari. la fa nekk ci lieu de mémoire dafa bari. la fa nekk ci patrimoine immatériel dafa bari. kalom googu ngay wax. Euh, le dépositaire transmetteur de l'histoire du Kalom c'est doon góor gi Waly mhm. mhm. presque deux mérites mhm. les étudiants de l'université de Dakar département lettres modernes section littérature orale ils ont ma dem pas gi di ñu histoire du Kalom ni papaam Gorgi Sambalaoube, Sen, moko don moo histoire bi mom téye nañ ko Louga pendant une semaine ak gouverneur Robin diko lacc histoire du Kalom xamal ko ni ko kalom ñetti ñetti ten la ci àddina yenn yi gis nañ ko yenn yi la kenn gisagul ba nëgëni ca profondeur ten bi 9 m 50 de diamètre ak profondeur boo xam ni kenn mënu ko nettali mu histoire boo xam ni tey jusqu'à présent boo demee Ndande ten baa nga fa ñi koy netti ña nga fa mais gëdd bi ñu ko war a jox. ak tey ji pèlerinage fa war a am. Mhm. loolu yaakaar naa ni lu rëy rëy la. léegi léegi tey jii boo jëlee euh, Pape Cheikh ak sa permission tey jii boo jëlee. Euh, pour pour genre quoi. Mhm. <laughs> boo jëlee réew mi bañkat yi fi nekkoon. ak ni mu tasaaroo won ci réew mhm. lolou tamit problème la ci récit bi. Mhm. mooy dañ lay tuddal ay ay ay ñaari ruq ñetti ruq. alors que xamuñu ne réew mi ni mu démé won ba ci touru Sénégal fi mu jóge parce que histoire ak géographie rek moo ñu mën permettre ñu mouvoir dans le temps et dans l'espace moy lay permettre aussi nga maîtriser li Hamidou kan tudde won la culture de l'altérité exact mooy boo may dajee keneen ban proposition la ban contre proposition la très important mooy crise identitaire bi nga xamante ni moom la fa doon jooy mhm. te je pense que lam doon joy, mag na fi mu ne ba doon kuy léegi man dem na fële ci bu yàggul dara ci ci ci Casamance ma dem euh, euh, fële Cap Skirring daje faak ay tubaab yoo xamante ni dañoo ñëw ngir def film ci Aline Sitoé Diatta mhm. ay tubaab yu ñëw def film ci Aline Sitoé Diatta ci Kabrousse loolu nu mu mën a demee ba ñun yitteewuñu ko ba ñooñ ñëw di ko yitteewoo ci ci ñun ak tamit ak leneen li mooy mhm. ndax mën nga ñoo waxal kooku moom bañ li tax mu bañoon ak moom mooy kan ak ci ban âge la Mom moom dafay exemple bu mag a mag Aline Sitoé fii ci ndakaaru la ñëw di liggéey mbindaan mais am lu koy wax ni ko moom dafa war a dellu place am du fii ñëw na Ziguinchor lol di wax ni ko sa place du fi mom cabrous la deuk cabrous bo demé cabrous jógee Cap gi nga wax boy dugg ci deuk bi yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax Mosor yang jógee Mosor yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax Kaju Kajukaay boo jógee Kajukaay yaa ngi jëm deuk bu euh, quartier bu ñuy wax Ñaalu alissou Sitoé Ñaalu la nekkon bo demé ten ba nga xamni fa la daan roté ma nga fa bu doomam ji nga xam ne moo nekkoon bi moom dong la bàyyi muy Seynabou bi mu gaañoo yàggul moo doon doomi Aline Sitoé mu doon koo xam ne dafa bañ ba mu jeex mais histoire am ngor gu rëy nekk ci mm. ndax jour bi nga xam ne ci lañ koy jël di ko yóbbu lu bari lañ rey dañ ko exile dañ ko exilé biñ koy yóbbu rey nañ lu bare bari wujjam na bu mu génnee lañ ko dóor bal jëkkëram mi ngi tudd Aliou gi dem naa ba ca dëkk ba dem naa ba ci ay sëdam toog waxtaan ak ñoom

ay 17 ans la am wala 18 ans ma nga tëdd tey ca Tombouctou waaye foofu aussi lu rëy dafa am mm-hmm. président ab du Diouf dafa d'accordoon pour ñu jël indi les restes de Aline Sitoé mm-hmm. bi ñu ko waxee jëkkëram dañu loolu lu am moo moom moo opposé wu ñu ne ko lu tax mu ni Aline bi mu fiy jógee dafa am ñeneen ñu mu fi jógee ndool Joola moo gore kon du moom rek moom moom la ñu exilé du moom rek ñeneen yóbbu nañ leen am na ñoo xam ni Ziguinchor ci baañ ba fa lañ dee am na ñoo xam ni egg nañu am na ñoo xam ni dañoo dee ci Aline Sitoé am na ñu wax ni loolu ba léegi ñu koy topp am na ñu wax ni bi muy dem dafa ëmb mm. la woon de mm. am na ñu wax ni dafa ëmb bi muy dem mm-hmm. Aliou Guèye nee na bu ñu ko delloosee ca ñam àndaloon delloosiwuñ leen loolu du ngor day ñaaw c'est comme Albouri. Albouri bi muy génn Amadou Cheikh la fekki waaye ba mu demee takk na soxna boo xam ne mi ngi ko takk dans l'ethnie zarma amoon na fii ci université Dakar benn femme bu ñu doon wax Fatoumata Munkayla thèse am Liliane Kesseloud moo ko encadré nekkoon na ministre famille boobu Ali euh, Albouri takk na ca soxna am na ca doom ñu wax Ceekure Ndiaye. Zarma ñoom ay lan lañu. Zarma yi ay euh, peuple kii la ethnie la comme séeréer comme joola takk na fa soxna. Mm-hmm. Fatick ci Aline Sitoé. Salimata Sidibé. waaw Aline Sitoé man su may su déggee li muy wax euh, peut-être moo gënoon a nekk moo gënoon féete ndaw ndata yàlla. mais bañ gi mu doon bañ foofu. foofu la itam la ndata yàlla doon bañ waalo man dama bëggoon euh, professeur Lamane Mbaye nga dellu siwaat ci taxawaayu ndata yàlla quand même parce que dañ koy dégg déjà nit ñi sax parfois bu ne dama bëgg tur bu bu bu neex tur boo xam ne da ngay sentir ne Sénégal ñu ne la pourquoi pas njëmbat pourquoi pas euh, ndate yàlla c'est des noms traditionnels authentiques exactement c'est des noms traditionnels authentiques mais taxawaayam mm-hmm. euh, ci digganteem ak Faidherbe foofu bëggoon nañ ñu ñëwaat fii bala ñuy ñëw ci Sidia xam nga euh, moom déjà dafa nekkoon koo xam ni rassemblement koo xam ni nitu jàmm mm-hmm. koo xam ni nitu paix ndax Faidherbe xam nga dem na bay làkk wolof mm-hmm. am na ñoo xam ne Faidherbe Faidherbe njaay lañ daan wax donc déggoon na wolof moom duggante woon naa moom duggante goo xam ni lu ci bari sur la pacification des rives foofu moom moo indi. Mhm. donc jouer na rôle boo xam ni yaakaar euh, rôle góor le jouer sax far. li naan moom cëru góor la yor. Mhm. joué rôle boo xam dans l'histoire véritable du euh, du nord du Sénégal surtout dans cette période du Walo, la mu fa joué.

xam histoire u Sénégal mm-hmm. day taxaw di tagg mu ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp nga koy suivre ah mm-hmm. di di di di tagg di di di wax moom te pare ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk du ñëpp am na ñu ñuy topp gëstu bi mm-hmm. mais ñun ñu bëri ci ñi tey buñ nee la jeng jengi foo bokk amaana sax doo ko mën a waxal sa bopp alors que boo remonté woon ba dem ah, di nga gis sa maam yoo xam ne tey taxawaay bu ñu doon taxaw tey ñu la ko waxee da nga naan jomb naa def li ndax diwee sama maam xam nga euh, Fatou wax nga dëgg Lorenzo woo na ma man mi Euh, moom généa généalogie lay def. Mm-hmm. waaye dañuy wax ne ku la jàngal ku dul sa baay am lu mu la nëbb. Mm-hmm. am na histoire bu muy nettali waaye am na fu mu yem. Mm-hmm. Pape Djibril mii ay maamam ñu nga dëkk Pire. Pire sañu xóor xaali Amar. mu ngi bàyyi ko ci man desit pour wan la ni la am na ci loo xam ni ñoom buñ ñëwoon tey ji buñ ko laajtewul wala ñu dugg ci biir duñ ko xam mën nañoo xam rek les connaissances superficielles de base déecëf njóobu doom yi mag yi mu am mooy jëleen yaseer mooy ndaat mooy man desit mooy pir mooy amari ngono sabel mi nekk premier damel man desit dafa gàddaay dem fuuta bi mu demee waalo dafa jël kuli am ci paate kuli dem fouta jël jéggi ba am ci amaat wala fi mënu mënuñoo amaat ñu ni amar moy hmm. khali amar fall hmm. sañ ci pir pir mi ngi joggé ci firi exégèse du coran firi alcorane mo jëk am njàkk ci sénégal 1611 ku daan dem nga na ma nga dem ci pirima ca mbar ma ah, sañu xoor mi ngi joggé ci xoor comme mom c'est un prince khali omar fall num def ba jang alcorane mom ndax serigne buñu wax boubacar kan moko jangal alcorane ci dimat hmm. sëriñ Boubacar kan moo ko jàngal alxuraan te di mag Eliman Boubacar bi mu ko jàngalee ba nuppi dañu ko damaa bëgg a topp nag samay maam damaa bëgg te topp nag fa ma jóge hmm. mu dajale dëkk bépp ni leen lu ngeen ci xam ki man ci daara ji mu ngi dem ñu ne ko danga koy may jabar hmm. mu may ko astakan mu am ci Mamour astakan ak Fatoumata astakan hmm. mayat ko aari loom mu am ci ceejaate haadi ak Demba haadi mooy tey jii piir gi ngay dégg nii école pir ba ak histoire université école bi dañ daan jàngale fi tey boo demee euh, dans le Fouta il y a plus d'une dizaine d'Almami. yoo xam ne ñëpp fii lañ la révolution Torodo de 1776 ak Thierno Souleymane Baal Pire lañ ko préparé. Hmm. muy Mbacke muy si ñu ci baree bari Pire lañ génne. Thierno Cheikh Abdou Khadir Kane. merci beaucoup. Hmm. université bëri Pire la ñu hmm. donc mu école boo ni c'est une école extraordinaire ni. mam mam mam maam Mor Anta Sali yore woon daara moom itam mm-hmm. ni Njaarnde nekkee woon un centre mm-hmm. loolu li ni Longoor ak sëñ Babacar mbay Longoor nekkoon un centre mm-hmm. ni Kokki nekkee woon un centre Fass Touré Fass Touré ak sëñ Hadi loolu nekk nekk euh, Sénégal dafa may jàmbaar ab Jibril dafa may jàmbaar yoo xam histoire bi il faut ñu koy ñu koy nettali pour nit ñi xam lan lañ am parce que li am yombul oustaz oustaz xam na ko. wax naa la sànq ni la euh, bu dee jom. birima rek doy na jom. gaynde ma boo ko bëggee boo ko masaan bëggee lu ko neex rek da nga koy tuddal birima. ndax góor gi Assane Maroxaye nee na mas naa ko wax ni ko ni ko Mbàkke euh, sa wajur wu baaxoo day baaxi rakk baaxi rakk rek nga am mu ne ko lu tax mu ne ko birima Fatma cub sama am moo jëkk a dàq damel tey.

Vincent Monteil nee na les gris-gris d'Albury faisaient la charge d'un chameau. Mm-hmm. Albury bu daan génn gàllaaj ji dañ koy téye. dañ daan teggi tiw euh, toiture néeg mm-hmm. ca kaw nga koy xool. Ah, ci Yacine Yacine Dieng bi ñu jàppee Birima. Mm-hmm. bi ñu jàppantee ñoom ñaar bi ñu dindee loxo bi. deri da ko topp. baayam Amar Amar Ngoone Ndeela ku ma jaariñ ni ko seen lubu kër cee Ndeela gi da ko war a téye. mu ne ko tey laa koy mujj dégg ku am kër ndey am nga kër baay daal di gàddaay. <laughs> bi loolu moo loolu moo indi la bataille de Ndiob bi ñu toogee ba war a daje Amari ku ma Kumba Jaara ànd ak ci Yaasin dañ koy fekki ci bu mu ngoraan maawo mi nga xam ni moo jur Birima am na juróom-ñeent fukki taaw waxuma juróom-ñeent fukki doom de juróom fukki taaw. nu mu demee noonu. bari soxna bonne question pap <laughs> bi ñu nee suba lañuy ñuy xare bi ñu nee suba la ñuy xare dañoo xas. xas mooy. waat la veille guerrière dañuy waat kenn ku ci nekk da ngay jël lance ni bu ëllëgee ma def nangam daal di. xaas uh-huh. bi kenn ku nekk yëkkatee. juróom ñeen fukki taw yooyu dañoo yëkkati ni ca yaasin jox nga ñu ndomba tànk waaye birima ñoo bokk bàyyi duñu ko wor loolu mooy la fratrie loolu mooy la force bi nga xam ne amoon na tam ci ay doomi bàyyi kenn ku ci nekk da ngaa wiccax ni ko damay fekk sama doomi bàyyi dañoo dox ba egg si njob bi ñu egsee birima dee lii mu doon ñu ne ko faal leen rek lañ lay ñaan bala ngaa war ñun ñëpp nañ jeex dañoo xëy di xeex ba tàkkusaan bu mu ngoraan maawo mi nga xam ne moo jur birima mi ngi ànd ak amar ngoon deel ku ma jaariñ ca doomam dàq leen góor gi di bàkku amar ngoon dellu Kumba jaan ànd ak baayu ki leen dax naan maa ko baaxi taaw taaw yëpp ñu jam leen naan maa ko baaxi taaw ca yaasin yaasin jeng ma ngi ñu sëf ci gilem gële ca Kumba Kayre ma ngi ñu sëf ci gilem gële lat Kayre may jokkil sama mbëru njaay basinu wala jooju ma ngi ñu sëf ci gilem gële xam nga di ko wax ak koo xam ni doomu ma la dàq bu mu nguraan maaw si di yëngu mu ne ko faal jàmbaar nga de waaye nan jaabal sunu bijau bi ak gone gu ndaw giiru dàq ca xam gonu fu yendu hmm. nan jabal mu ne ko na la ma nga dé xatali force bi jom joju amon, hmm. ngor gi ñu amoon hmm. motax gor gi samba jabar yalla na suuf fooyef ci kawam nee gaynde opp ci rab waye mo ciop jom bi sëriñ ci ñewé dañ ci jël sëñ Modou dañ ko jox Fatma mom ci gaynde Fatma saaxewar soxna may murum saaxewar saaxewar fan ma kuli kodd goy ndaw wégéej kenn ku ci nekk sëriñ basiru ak gaynde fan mu ñoo bokk néegum ndey boo demee Tiwaawan wax naa la ko sànq ci soxna astukan muy sëriñ Cheikh muy ñëw ñëpp boo jëlee histoire jolof jël maam safeetu ñang ñëw ci maam ngay ñang maam ngay ñang mi jur safeetu ñëw ci maam alaaji ab dabax ak ci xalif général sëriñ Mbaye Sy Mansour bataille de Paoskoto bi ñuy wax. boo demee tey jii Ndiassène Baba Lamine soxna Astou Sarr mi ko jur Yacine Dieng ko jur dëkkoon mosu bur dégg ngeen kodd muy njiñeen Paoskoto mooy Pathé Badiane. waaw lu ko xew foofu. Paoskoto Maba Jaxoo ko xeex ak Buur Sine xam nga buur nak ñaar dafa am dafa am buur siin commande fen famaak ak buur siin commande fen fandeb mm. fandeb mo seedeel seigne Touba mm-hmm. moni je parie mon sang mon manteau ainsi que les terres du Sine que dans la maison d'Ahmadou Bamba vous trouverez son chapelet sa bouilloire et sa peau de prière Tekna sama deret sama manteau ak soufou siin ni keur seigne Touba bo demee dang ko fa fekk der ak satala course mooy màggal ko nga nga dégg ñu di ko def. yaakaar naa bàyyi am na solo parce que professeur li muy def Seydina Aboubacar radiallahu anhu lii la doon defal Seydina Muhammad mm-hmm. kon lii sunna la mm-hmm. ñu tuddee woon ko ilmul ansaab maanaam xam-xam bi nga xamante ne si la ñuy waxee askan wi parce que mm. ku xam xeetu arab xam ne xeet la ba nga xamante ni bu mm. fonk askan lañ ndax ku si nekk danga nga daan jóg naan diwooy sama maam diwooy sama maam diwooy sama maam ku si nekk lu sa maam doon def si lu baax ñeme guerre ñeme wala mu doon wax si lu baax mm-hmm. nga fexe ba jom jooju ak ngor ngor bu nekk si yow moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee si moom mm-hmm. dafa ne xiyaarukum fil jaahiliyya xiyaarukum fi islam mm-hmm. mooy li Pape Cheikh wax dafa ne ñi nga xamante ni dañu amoon ngor am jom mhm. am fulla am fayda am dignité personnalité mhm. bu ñu tuub ni ñu amee li ñu àndal si valeur mhm. bu ñu tuubee dëkk doon ay jullit ñoom la seen ngëm di gën a dëgër te loolu dafa nekk la nga xamante ni toujours mooy li ñu doon wax bii ak bii dafa nekk ya nga xamante ni faaw dañuy dañuy ànd yaa ngi tudd léegi ku mel ni Vincent Monteil historien xam nga bi mu ñëwee Afrique nekk Mali dafa bindoon benn livre tudde que l'islam noir l'islam du am Hampâté Bâ tontu ko nekk l'islam n'a pas de couleur couleur u ndox la yor ndab loo ko def rek couleur boobu lay jël mu reprendre livre tudde ko l'islam en Afrique noire mais dafa def ay seede ya nga xamante ni si ñu mu fekkoon foofu si ay pël si juróomi ponk l'islam mu ne boo jëlee ñu ne la juróomi ponk l'islam da ngay seede ne yàlla kenn la mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni mm-hmm. mu ne loolu la xale yi fawee ak mag ñi mm-hmm. ndax ku ne li ñuy fay mooy bu dara xew rek ñu ne laa ilaha illallah mu ne te loolu dafa nekk la nga xamante ni ñoom ñëpp dañ ko miin kon l'islam mu ngi si ñoom mhm. mu ne beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di azaka mhm. mu ne ña ma fa fekk dañu solidaire mhm. ndax am na ña nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw mais toujours dañuy dimbalante kii yekkal kii kii yekkal kii kii yekkal kii kon loolu xeetu sarax la xeetu azaka la si waxin beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di koor mu ne xale yi de bu ñu jógee euh, li nga moom mooy fajar dem sàmm ji mën nañ ñëwaat ba ngoon du ñu lekk dara kon ñooñu koor daanaka l'islam daf leen si daf leen si daf leen si fekk mhm. beneen bi itam boo ñëwee si li nga xamante moom di aj mhm. mu ne ka nga xamante day ñaari ñetti di màngaani di dem dëkk ak dëkk kon kooku dem fi nga xamante ni moom moo euh, jafew ko ndax jamono dañuy dox mais bi li importance julli fajar mu ne africain wala peul yoy nga xamne dañuy duggon ci l'islam l'islam ñew mhm. bi l'islam la ñew ci ñom dafa fekk ci ñom fajar mooy càppantati comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp dañuy jóg dem si gétt gi génn jur gi ratt li ñu war a ratt bu ñu paree ànd dem sàmmi kon l'islam dafa fekk valeur yooyu waaye bi mu ñëwee moo tax toujours li ñuy wax mu nekk xeet wa nga xamante ni muy deru euh, xeetu der bu ñuul toujours seen ngor ak seen jom ak seen fulla bu ko l'islam si ay jikkoom yu rafet lambo rek ken dabu leen si lislaam foofu aussi oustaz te loolu xam naa ne ko meuna a bu baax moy mhm. mam Seydina Limam mhm. xam nga euh, waxna ko ci émission ba tay mhm. digeunte bi nga xam ne ni ngejaga trois jours yam fa def waye xam nga ni keroog bi nga gaal gi di ko koy déporter gaal gi ñëw ba gore toj Mm-hmm. nga xam ne nañ ko fo xam ne bi wax nañ leen ki bu ngeen ko génnewul mm-hmm. dekk bi boo matul sens dessus lay génne mm-hmm. lañ ko fa def ci ay fan ak keroog ba muy ñibbisi ak wa Gorée niñ ñu ak ñi doon joy ci gan ga nga xam ne ma ngi fay joggé waaye leneen lo xam aussi amna importance trop ci bis bu nekk chercheur yi diko wax moy égalité sociale bi mu indi ñëw daani laahi waxatul sant kenn xeebatul nit kenn joxatul juddu loolu lépp mu dindi ko loolu aussi defe naa modèle d'organisation la bo xam jarna rafetal aussi wa modèle d'organisation la ba nga xamanteni toujours day wone pass pass ak ngor gi nga xamanteni mo moo si mag parce que pas du junjoon na ko léegi hmm. il faut jeunesse bi xamné hmm. ñi ñi fi tudde ñepp comme ay héros il faut ñu xamné âge bi ñu amone du ay 70 ans du ay 80 ans mais ay 20 ans exact. ay 25 ans ay 30 ans c'est si lañu def ay jaloore ya nga xamanteni ci lañu seen ay ay nawle yépp mom lañu len ci lañu len nawé won ci mm. lañu len joxé gëdd mm. waye tam ci lañu joxé seen personnalité mm-hmm. donc limu bëgg wax fofu moy du question bo déggé ñu la mampu joxba mm-hmm. wala cheikhul khadim mm-hmm. radiyallahu anhu wala jor nga ah nga défé né pa la won dédé jeune la woon tudd nañ fi léegi ki nga xamante Aline Sitoé Diatta exact 17 ans 18 ans 19 ans mhm. mu bàyyi fi la nga xamante ni yooyu rafet la mhm. kon jeunesse bi li leen war mooy ñu xamante ne l'islam ak ngor ak diine dafa nekk la nga xamante ni dañuy ànd li ñu ànd woon démb tey ba gannaaw suba insha allah professeur Lamane Mbaye guddi waxtaan wi neex lool euh, ngeen ànd ci ak ñun ci télévision Futur Média guddi gu jot ak couleuru quartier général loolu mooy particularité émission bi et c'est exceptionnel du ñu jóg ci di rafetlu euh, taxawaayu suñu borom xam-xam yi yi mënul ñàkk nag ma fàttaliwaat leen ko bokk na ci ndimbal yi ñuy séddale gaaw leen ngeen dugg lu waxtaan wi neex neex bu ngeen wootee ñu euh, jox leen ci ay enveloppe yoo xam ne bu ci nekk def na ñaar fukki junni yor nañu fi it ay dund suukar ceeb Euh, diwlin euh, sobleeg pomme de terre euh, dañuy joxe ba joxe ay masque ak ay gel joxe ay visière visière yi nak ñong ko jëlé fondation Youssou Ndour yépp ñu fas yéene ko jagleel ci période bi la nga xamee ne période de solidarité la restez chez vous nous on s'occupe du reste yàgg ngeen dégg ñukoy wax té gën feñ ci période bi la nga xamee ni couvre-feu la et que tok di seetaan émission bi ñu lay jox yi la gënal ci télé bi lolu dafa am solo man dak la bëgg mu demaat ak ñun ci yi ñuy bégalee bu ko défé pour noppee euh, ñu jël téléspectateurs spectateurs a àggali waxtaan bi professeur Lamane donc nous ngeen a ak numéro téléphone 88 628 72 86 ku dugg 88 628 65 65 ku itam ñu Ou la 88 628 99 80 ku ñu jox la 88 628 76.